tell Yeah. إن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 حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله mooy suñu yonent te gëm nañ ne lépp lu mu wax yàlla ko ko waxloo wa ma yantiqu anil hawa du wax mukk ci bànneexu bakkanam wax na ne ñaari jikkoo ngi ni dara gënu ko mooy rafet njort ci yàlla ak rafet jot ci jaamu yàlla yi xañ na nag rek ñu rafet njort boobu ñu am ci jaam bi xañ na yàlla dinañu defal tawfeex gannaaw ba ñu beesalee ndigal bi ci kilifa yi nga xam ne ñoo teew muy sëñ moor mi ñoom di jaay tijaan nga xam ne ay borom xam-xam lañ damay wax ne wax seen kanam du doon lu yomb waaye bu ñu joxee ndigal amul sikk na yàlla danañu defal tawfiq kon sëñ mi ñu leen di ndigal beneen yoon. ndigal kon nag kon ndigal bi jóg na kon ñi ngi sant yàlla bu baax di ndokkeel suñu bopp di leen ndokkeel ci liñ nekk muy weeru koor muy weeru alquran nga xam ne dara taxu koo dikk dafa ñëw pour defar doomu aadama pour lijjanti lëj-lëj bi nga xam ne doomu aadama ci lay dund li nga xam ne tey moo ñu dajale pour ñu war ko waxtaanee alxuraan loolu rek moo ko tax a jóg moo tax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa mës a toog fekk ñoom sidna ñu ngi ko wër mu ne ah fitna dana am sidna ali ne ko su boobaa naka la ñuy def ba génn ci problème boobu mu leen de téeréen seen kanam moo leen di régler problème boobu parce que histoire ñi jiitu woon mi ngi ci xibaar yi ñu war a ñëw mi ngi ci te ni ngeen def ba àtte seen diggante ci téere boobu nekk mu alxuraan ñu wàcce ko ci weeru koor comme ni ko alxuraan waxee shahru ramadan allazi unzila fihi alquran weer la woo xam ne ci la yàlla wàcc alquran kon buñ ci dajee bëgg waxtaanee suñ problème ñuy waxtaane lu gën ci lu ñuy waxtaane kon ñuy wax ne mimma la shakka fii anna shariatana al islamia tattasifu bi shumul shariatun shamilat alzamana kullahu wal makana kullahu كما شملت الإنسان في كل مراحل حياته وشملت كذلك كل أنواع الهداية التي يحتاج إليها البشر وقد اشتملت على جانب العقائد وجانب العبادات وجانب الحدود كذلك اشتملت على جانب الأخلاق فالأخلاق أيها الإخوة في شريعتنا الإسلامية كانت محور بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق mbokk yi ñu dajee nañ waxtaan ci jikko bu ñuy waxtaanee ci jikko ñu ngi waxtaanee développement comme ni comme ni ko borom benn borom xam-xam waxee woon nee na mawasin ni ñuy teg mooy peesuwaay yi nga xam ne danañ koy teg pour di xam ne yokkute am na bu ñu demee ci politiciens yi dafa wuutee lool ak ñi nga xam ne ñuy dox ci wàllu économie ak ñi nga xam ne ñooy dox ci diin lislaam ñi nga xam ne ci dañuy dox ci politique ñoom ñi nga xool infrastructure yi ñi nga xool tali yeeg marché yi la ñu xool hôpitaux yeeg écoles yi la ñu xool di xam ne ñu ngi waaye bu demee ci ñi nga xam ne mooy ñuy dox ci wàllu ñoom ñi nga xool mustawal maïsa li ñuy wax niveau de vie la ñu xool nit ñi naka lañ toll ñàkk na lañu lañuy dundee nañ fàttaliku ne am na koo xam ne mooy nekk suñ kanam mooy roykaay bu mag bi muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne tudd nañu xadis léegi mom wax ne innama bu'itu li utammima makarim al akhlaq dañ ma yodi pour ma motali jikko yu rafet yi te jikko yu rafet yoy bokku na ci li tax yàlla ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana am ngeen roy kay bu mag ci ki nga xamne moy mooy yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam lutax nak moy mbollem yonenti yàlla yoni yépp ku ci nek amna jikko bo xamne nek na ci yow am jikko bo xamne ne ko ci yow waxna ci aaye wa tilka xujjatuna atainaha aataynaha ibrahim narfau darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan hadayna wa nuwan hadayna min qabl wa min zurriyati daud wa sulayman wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as salihin wa ismaila wa lisaa wa yunusa wa luuta wa kullan faddalna ala alalamin dem ba yàgg na ulaayika alladina hada allahu fa bi hudaa muqtadi mu ne ñii ma tudd muy ñoom ibrahim di ñoom yonent yàlla yusuf ñoom yonent yàlla daawuda ñoom yonent yàlla ismail ku ci nekk am na jikko bu nekk ci yow mu ne ñii nag man maa leen jubal fexeel nga roy ci ñoom kon buñ dajalee jikko yépp ku ci nekk jikko ba nga amoon jikko bu rafet ba nga amoon yent yàlla Muhammad dajale nako tok ci kaw mo do yàlla nako wa innaka la ala khuliqin azim bu dee dañoo dajale jikko yépp yo ya nek ya pare ci kaw kon lan moy jikko ñu ne jikko kama arafa al ulama comme niko borom xam-xam yi waxee ñu ne amrun wala hayatun saabitatun fi nafsi al insaniya hay'atun saabitin fi nafsi l insaniya benn jëmm la boo xam ne dafay mekk dafay nekk ci biir doomu aadama tasduru an al afaal mboolem jëf yëpp foofu lay gongee ko mooy fa lay jógee na ba dab gongee ko ñu bëri duñ ko xam parce que duñ dégg olof yooyu mais jëf yëpp fa lay jógee ko su ko defee nag bu jógee ko ci doomu aadama ci la ñu mën a xam kii ban façon nit la ban jikko la am ndax ku jikko bu baax la yor wala jikko bu bon foofu lañ koy xamee mu ne nag su ko defee jikko dafay exprimer li nga xam ne moo nekk ci biir doomu aadama ndax lu baax la wala lu bon comme ni nga xamee ne noonu lay jëmmi doomu aadama di wane nit ki nu mel ndax ku xees la wala ku ñaaw la wala ku gudd la wala ku gàtt la noonu lay jikko di feeñalee biir doomu aadama kon noonu la ko borom xam-xam yi séddalee mu am na ñaari ci nekk am na lu ñuy wax alfitr yi am nañu al alfitr yi wal jibel yi am lu ñuy wax muktasab boo xam ne nit ki daf ko judduwaale ak boo xam ne nit ki dafay judd fekk mu nekk ci moom mais mu changé ko kon am na boo xam ne nit dafa juddaale am na boo xam ne nit judduwaale ko bi nit ki judduwaale nag bu ñëwee fekk mu nekk ci moom su boobaa liñ bëgg ci moom mooy lan mooy na sant yàlla bu baax xam na yàlla dimbale na ko def ci moom jikko ju baax na fexe na continuer na fexe jikko boobu sax waaye su fekkee dafa ñëw fekk safaan ba ndax dafay jébbal boppam rek nangu ne ah nii la ma yàlla bindee rek nii lay continuer déedéet aliestas bi mu la abadan ñu ne su boobaa ni muy def mu ne innama yu jaahidu ala an yugayyira hada al xuluq dafay jihaat ak bakkanam fexe ba soppi jikko boobu ci ban yoon en tariqi di nafsi mooy dafay tàggat bakkanam ci jikko yu baax mu ne loolu ci sax diit bi nga xam ne mi ngi tàggat boppam ci jikko yu baax ci jikko yu rafet su boobaa kenn du ko tuddee lii jikkoom la su boobaa dañ ko tuddee taxalluqa léegi nag suy sax ci loolu di tàggat boppam ci loolu su boobaa yàlla dina ko dimbale su ko defee ko boobu mu doon def day mujj nekk ilaa xuluq day mujj nekk jikko ci moom loolu moo waral ngay dégg nit dem ba mu yàgg ne eh bii kii de ak a baaxoon kon ngay gis ne kon daa bon léegi kon soppeeku na ñu ne ah ak a bonoon ñu ne ah kon de ku baax la woon mais yàq na jikkoom kon ngay gis ne nit booy jikkuwoo dara bu yàggee rek dana nekk ci yow. kon nit suy faral di bu juddoo xam ne jikko bi nekkul ci man na fexe jihaad ak bakkanam xeex ak bakkanam ba jikk boobu dañ ci moom te loolu suñ ko waxee alxuraan da ci hadis daf ci ñëw yonent yàlla muhammad dafa wax ne man yatasabbar yusabbiruhu llah man yastagni yugnihi llah wa man yastaafif yuifuhu llah yonent yàlla muhammad dafa wax ci hadis ne képp kuy muñ muñ yàlla def la ngay muñkat ñëw judd nga ku gaaw a mer nga ku gaaw a xeex nga nga gis ne jikko bi daal baaxut ci ban daal naa fexe soppi ko su boobaa yit yàlla muhammad nee na booy muñ muñ lu su boobaa yàlla dana def ngay muñkat mu ne man yastaghni yughnihi llah gis nga ne da ngaa séeneen lu ne nga bëgg ko ngay tàggat ci bopp ci doylu su boobaa yonent yàlla muhammad nee na yàlla dana def nga nekk ku doylu mu ne man yasta'fif yu'iffuhu llah su fekkee da ngaa nit koo xam ne mënoo fegu lu ne nga dugg ci dugg ci loo xam ne yàlla bëggu ko yàlla sib na ko ngay tàggat sa bopp ci loolu su boobaa yàlla def ngay nekk fegukat kon nit bu mu wax ne kii jikkoom bi lay dee déedéet dañuy wax ne ab tabaay la tataxayar déedéet ab tabaay u tataxayar lu lay arab yi wax ida kaanat tabaay la tataxayar fa ma kaana hunaka daain an yabaata allahu rusula mune su fekkee dañu taxaw ne jikko yi du changé nit ki ni lay dee ci jikko bi lay dee kon su boobaa amul sens yàlla yónni yónni yónnante yi te ki leen jiit ci loolu muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne mooy mooy borom jikko yu mag yi lan mooy seen importance ñoom jikko yi ñoom yónnante yi lan mooy tax di ñëw ñu naan wa min mahamir rusul tazkiyatul anfus bokk na ci seen yitte ñoom yonente yi mooy fexe ba sellal bakkanu doomu aadama bu ñu demee ci alquran ci suratu jumaa da ngay fekk yàlla di ko wax walladi baasa fi l ummiyin walladi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayaati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba wal xikma wa in kaanu min qable fi dalali mubin yàlla yebal ay ndaw yoo xam ne ci yéen lay jóge ko pour lan pour ñëw sellal leen pour lan selal seeni jikko defar seeni jikko bam bax ba nga xamne yalla yàlla nok na mo tax a ñu yonante yi kon loolu moy jikko li nga xamne moy bo xamne dañ koy fagu ak bi nga xamne da fay nit ki koy judalé kon nak bu kenn am ñak yaakar ci jikko bu nekk ci moom na lu jëm ko tagat ba soppi ko su fekke jikko bu ñaaw la ku juddu kuy dox gis ne man jikko bi ma andak du jikko bu l'islam rafetlu du jikko bu dina rafetlu na jéem gor góorgóorlu soppi ko ba yalla dimbalé ko jikko soppé ko mu am ay jikko yu rafet buñu démé ci alquran nak, dinañu fekk importance bi nga xamné ne jikko am nako buñu démé ci alquran dinañ gis place bi nga xamné ne jikko am nako ci bir alquran ak sunna dañu wax ne alquran dafa yàlla dafa wax ne wala dañ naan su fekkente ne yàlla am na lu muy digle ci jik ci jikko ju baax wala muy tere jikko boo xam ne jikko bu ñaawlu la du oo nit ñëpp buy oo dafay oo ñi nga xam ne ñooy ay jullit ñi nga xam ne ay jullit lañ lay oo suñu demee da fekk yàlla di wax ne yaa ayyuha alladina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu kon gis ne ba muy oote fii pour digle ñi ñi ñi taxaw muñ ak muñ lante ba muy oo dafa oo ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla suy tere ba tey tamit dafay tere ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla parce que nit ku gëmul yàlla gisoo bés gëmoo bés penc yàlla mun laa digal wala mu lay tere tant que gëmoo ne bés penc kon ba muy digle ba mu ñu digal ñu julli ñi daf ñuy ooyee ci siira boo xam ne siiratul imaan la mu ne yaa ayyuha alladina amanu isbiru yéen ñu gëm yàlla na ngeen muñ ba mu ñuy digal ci dëggu dafa daf ñuy ba tey ci baat boo xam ne dafay tegtal ñun dañoo gëm yàlla yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu maa saadiqin yéen ñu gëm yàlla ragal leen yàlla te ngeen ànd ak ñu dëgg bañ demee gisaat ci biir ba tey ba muy oote ba tey di digle jikko boo xam ne jikko bu rafet la muy wax ju rafet def ne yaa ayyuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yéen ñi gëm yàlla na ngeen ragal yàlla te wax wax ju jub nga gis jikko yooyu yépp ba mu koy digal jullit la ko digal ba ñu demee ba muy tere li nga xam ne mooy jikko bu ñaaw wotu ñëpp ba tey dafa xol ñi nga xamne ay julit lañ mu ay leen ko ya yaa wal ladin amanu mo ay bi nga xamne ki kii jàng na ko leg leg sank la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'u min nisaa'in asa an yakunna khayran minhunna mu ne yéen julit ñi bu kenn ci yéen di ree moromam ree ngir sabot nit waxuñ nag nit def benn geste nga ree waxuñ ree boobu mais ngay ree nit ngir xeb parce que amaana ki ngay xeb moo la gën yonent yàlla nuux alayhi salaam li tax ñu koy tuddee nuux tudd nuux yashkur la tudd mi demee ci taarix ñëpp jàng nañ ko waaye li waral ñu tuddee ko nuux nuux mooy jooykat bi yuuxukat bi li ko def mooy dafa tiim benn xaj xaj mu sabote ko ba mu ne ba mu waxee ci xel na xaj bi de moo ñaaw mu ne ko ah yow de yàlla ngay sabote parce que yàlla ma bind loolu bokk na ci kon li taxoon muy jooy jooy yu bëri parce que xamut yowmal xiyaama kan moo ci dugg ñu aljanna ñoom ñaar nit feeg ak dama ne aljanna kii dugg safara nga dugg aljanna gën a góob inna akramakum indallahi atqaakum kii gën ci yéen moo gën a ragal yàlla kon nit daganut nit di xool nit di ko ragal di ko ree kon ba mu ñuy tere jikko boobu daf ñu tere jikko ree la yasxar xawma min xawmin bu kenn ci yéen di ree morom asa an yakunu xayra minhum amaana ki ngay ree moo la gën wala talmizu anfusakum wala tanaamizu bi alqaab bu leen jox seen bopp sante yoo xam ne neexu tuddee ko xam ne ni ko tuddee li nga xam ne neexu ko loolu bokk na ci li nga xam ne yàlla tere nañu ko kon boolem jikko boo xam ne yàlla nga koy digle ay jullit la ko digal mboolem jikk boo xam ne mi ngi koy tere ay jullit la ko tere waaye jamono ji dañoo toll foo xam ne dangay toog dégg benn jullit ne ah diw sàngam de moo moo gën koo xam ne bokkut te ñun diine yàlla yow la ko digal pour nga def benn waay dafa wax ne suñ benn professeur fa bañ nekkee Kaolack di jàng muy wadut dañu doon jàngal mu ne dafa am benn waay benn ganee dem jàng taarixul islaam jikk yu rafet yi ci nekk ba mu pare daal di tuub dugg ci lislaam ba mu tuubee duggoo pare na xaar ma dem def visite ci réew jullit ñi ba mu demee gis sàngara si ca gaa yi jëf ji bon ji nga xam ne ñu ngi koy def te ñu koy def ay jullit lañ mbubbu ay turu jullit mu jaaxal ko lool dafa sant yàlla ci xolam te maa ngi sant yàlla ba ma xamee lislaam ba pare doo ko xam jullit ñi mais su ma xamoon jullit ñi du ma xam du ma dugg ci lislaam kon nga gis ne jikko yi ñu ngi détourné nit ñi ci yoonu lislaam bu ñu demee ci sunna yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam moom daane takkale diggante gëm yàlla daana takkale li nga xam ne mooy gëm yàlla ak li nga xam ne mooy imaan jikko ak imaan daana ko takkale daana wax ne su nit ki nag pour gëm yàlla mat mooy foog jikkoom mat nit pour sa gëm yàlla mat mooy foog sa jikko mat daana wax ne ak malakum ak ak ak malu imaanukum ahsanukum axlaaqan daana wax ne jullit ñi man ak malul muminina imaanan ak malul mu ne jullit ñi ñi ki ci gën mat gëm yàlla mooy ki ci gën a rafet jikko mu ne xiyaarukum xiyaarukum li nisaikum ki ñi ñi nga xam ne ñooy tànneef ci yéen mooy ñi nga xam ne ñoo gën ci seen soxna yi di rafetal jëm ci ñoom kon nga gis ne yonent yàlla Muhammad daanako boole ci yi nga xam ne mooy luy mottali gëm yàlla muy jikko bu rafet mu ne nag moom li nga xam ne mooy jikko ay ngëneelam bari na te jullit bu nekk boo ko xamee war nga cee sax lu tax mooy ñi nga xam ne ñi ngi leen xool te bokkuñu ñun diine am jikko yoo xam ne ñi ngi ko làmboo muy jikko yi rafet te lislaam jàngale ko digle ko ñun ñu bàyyi ko ba ñoom làmboo ko ñoom bañ koy def dañ koy def rek ngir leen seen intérêt àdduna moo tax ñu di ko def waaye ñun jullit ñi dañ ko war a def teg ko ci gëm yàlla yàlla ñu ko digal te it yaakaar ëll feek yàlla ñun jikko yooyu ñoo ko war a làmboo kon bu ñu demee ci li nga xam ne moom mooy ay ngëneelam moom jikko danañu fekk ne bokk na ci luy diisal màndeexe jëfi jaam ja jaam yi yomal qiyaama yàlla daf leen di tegal ay peesuwaay yoo xam ne ci la ñuy pees seen jëf yi ku ci sa jëf ëpp jëf ju baax ëppale sa jëf ju bon texe nga texe ngoo xam ne kenn xamul nu mu su fekkente ne nag sa jëf ju baax moo gën a néew su boobaa yow perte nga perte ngoo xam ne xamoo nu mu toll fa amma man saqulat mawazinuhu fa ulaayika umul muflixoon mu ne ñi nga xam ne fexe nañ ba seen jëf yu baax moo lëng seen jëf yu bon mu ne ñooñoo ñu texe dëgg nag mu ne wa amma man xafat mawazinuhu fa ulaayika lazina xasiru fa anfusahum mu ne ñi nga xam ne fexe nañ ba seen jëf gën a suufe su boobaa mooy ñi nga xam ne ñoo perte yàlla nañ ci yàlla musal wa amaa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishati radiya képp koo xam ne dangaa fexe ba sa jëf ëpp jëf ju baax ëpp sa jëf ju bon mu ne yàlla ngi ci dund gu neex yàlla nañ ci yàlla boole kon nga gis ne kon jikko bokk na ci luy jegeel jëfi doomu aadama yowmal xiyaama lu koy diisal te it bokk na lu ko jegeel yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne ma inna min ahabikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yowma alqiyaama ahaasinakum axlaaqan mu ne yowma alqiyaama ki may gën a jege ci jaam te ki ma gën a sopp ci jaam ak gën maa jege ci toogaay mooy ki ci gën a rafet jikko ci yéen te yaakaar naa ne ku nekk bëgg ngaa dugg aljanna aljanna neex na lool waaye dëkk yonti yàlla Muhammad moo dàq fuuf te ak amu sikk na moom fa muy dëkk ak fay ñenn ñi dëkk du bokk kon nag su fekkee nit ki bëgg na dëkk ak yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bëgg na am mbëggeel yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam na fexe ba rafetal jikkoom su boobaa bokk ci nga xam ne ñoo ko jege mu ne nag wa inna min abghadikum ilayya wa abadi wa abadikum minni majlisan yawma alqiyama artharsarun wal mutashaddiquun wal mutafayhiquun mu ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoom lay gën a jéppi te ñoo may gën a sori ci jotaay ci toogaay yi yowmal qiyaama mooy ñi nga xam ne mooy sarsar sarsar mooy ko koo xam ne lu mu xam wax lu mu xamul wax lu am solo mu wax lu amul solo mu wax kooku la ñuy wax sarsar bokk na ci tamit mooy al mutashaddiquun mooy koo xam ne foo toll grand place boo toll yaa ngi wane ne maa gën a éloquence maa dàq wax lii maa ko xam nangam ak nangam mu ne bokk na ci ñi nga xam ne yonte bi ñu la gën a jëpp ak ki nga xam ne dafay rëy rëylu yàlla nañu ci yàlla musal kon yéen jeexin nag la jikko mën a def ci doomu aadama rawatina bu yàqoo jikko bu yàqoo dina lor nit waaye bi em ci lor nit ki rek waaye dina lor ba ci société bi muy dund buy yàqu nag dafay feeñ benn mu feeñ ci bakkanam wala mu feeñ ci ruuxam wala mu feeñ ci li nga xam ne mooy xolom te bu ci nekk rek baaxul bi nga xam ne mooy feeñ ci xolom wala mooy bakkanam lu mu koy yóbbee mooy bëgg bànneex bànneexu biir ak bànneexu koy nu mu ko mën a amee rek dana ko def jikko bu yàqu mën na posi loolu ci doomu aadama su boobaa booy ut sa ut doo ko rafetal te ut bu rafetul lekk du rafet yonent yàlla Muhammad daan wax ne ittaqullaha wa ajmilu fi talab na ngeen rafal yàlla na ngeen ragal yàlla te na ngeen rafetal li nga xam ne mooy ut bi mu ne su nit ñëpp daje woon pour jox la loo xam ne yàlla joxu la ko mënoo ko am kon nag ni ku ne sa wërsëg danga ci jot kon nag jaaree ko fu rafet kon bokk na ci su fekkee ni jikkoom rafetul ba yàq ba yàq ba bakkanam dina ko poussé mu topp mu nekk ci li nga xam ne mooy topp bànneexu bakkanam ak bànneexu biiram ak bànneexu payam te doomu aadama bu àggee foofu rek moo gën a suufee lépp luy suufee waaw moom lay alquran wa ulaayka hum charrul bariya mu ne ñi dañoo gën a yées ci lu yàlla bind yàlla nañ ci su ko defee su fekkee nag yàq na xolam du ko lor moom dong waaye mën na koo lor lor njabootam waaye mën na koo lor ba lor fi mu dëkk réew mi mu dëkk bu yàqee xolom nag benn mu poussé ko ci bëgg lan mooy bëgg riyaas mooy bëgg ak càng te loolu bokk na tey lu yàq àdduna bi bëgg cang dara jaral na la nga rey lu nekk bëgg càng tax na nga liggéey nit yàlla nañ ci yàlla musal bokk na ci li muy yàq ci xol doomu aadama mooy rëy dañuy wax ne bàkkaar yi njëkk wàcc ci kaw suuf muy rëy di rey nit di añaan yépp febar la bo xamne ne ci xol la jógee reey ki ko njëkk def moy iblis la'natullahi alayhi iblis a ko ñëk def gannaaw ba yalla bindé ki nga xamne ne adam sant na ko sujjóotal ko dafa bañ da dama ko sujjóotal parce que mako gën da ko bind ci safara nga bind ma ci ban kon liko yobé lol moy reey rëy ñi ne rëy feebar la ci feebaru xol yi nit war na ba dañ ci mom kon iblis anda ak loolu yépp jaamu na yàlla fu nekk waaye lam liggéeyun yépp perte na ko ngir jikko bu ñaaw boobu nga xam ne yàlla na ci moom rëy yàlla nañ ci yàlla musal bokk na ci timit li nga xam dana juddoo ci feebaru xol mooy kañaan tey moo fees del ci diggante nga dem ci société bi diggante directeur ak liggéeykat yi nga dem ci gouvernement bi ci biir ministre yi nga dem feneen ak feneen ba mu jeex tàkk ku nekk yaa ngi añaane sa bopp poste ba mu am te képp koo xam ne jikko boobu mi ci yow dem ba nga ba ba nga commencé di ci lor nit su boobaa yaa ngi dekkal sunna boo xam ne suñ su sunnaay xaabil ak habil parce que ñoo njëkk a saxal loolu ki nga xam ne mooy aadama dadaa def comme ni ñu ko nettalee awaa dadaa bii dadaa ëmb ñaari ëmb bu ñëwee ñaari ñooy ñooy takkante ñaar ñi nga xam ne judd nañ ñooy nekk góor ak jigéen suñ paree kii day takk moromam waaye ba mu demee ba ba nga xam ne njabootu aadama yaatu na yàlla dafa soppi loi bi ne léegi bu ke bu ñaari juddoo fii dañuy muñandiku ba yeneen ñaari juddu ñi boole kële ak kii jël kii boole kële ba loi bi dem ba toll ci xaabil ak haabil ba xaabil juddee ànd ak seex bu rafet haabil juddu ànd ak seex boo xam ne kee ko dàq xaabil na ko man duma ko def sama bos lay takk ñu ne ko noonu da soppi loi bi loi bi lii da nga koy nangu mu ne du ko def man sama sama seexandoor bi lay takk ñu ne comme ko xaccoo ngeen dañ koy dañ koy tirage tirage bi nag mooy la da ngeen def qurbaan da ngeen def benn genre jaamu yàlla ku yàlla nangu rek yaa moom xale bi loolu lay alxuraan nett ba na ba am abnay aadama iz qarraba qurbaanan fa taqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al axar fu mujjee xaala la aqtulannaka xaala innama yataqabbalu llahu min almuttaqin la in basatta ilay yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtula inni axaafu llah alamin mu ne ko man du ma takk sa sa bos sa bos lay takk ba ñu defee tirage bi far kii génn turu xaabil génn xaabil daal di ko takk mu ne ko danaa la rey mu ne ko man de ba ma ba bëggee rey du ma la rey man duma tal sama loxo jëm ci yow pour ray li am mooy su fekkee da may ray dama ne baa ngi demee ñaari bàkkaar yépp wa zalika jazaa'u zalimin te loolu mooy fay képp koo xam ne da ngay tooñ ngay teppi ndigal kon nga gis ne kon kañaan a ngi commencé judd foofu su fekkee nag nit da nga ànd ak nit nga gis ne moo la ëpp daraja tey lii moo ko ayoo nga ne déedéet du ko jël maa koy jël su boobaa dekkal sunna bu ñaaw kon bokku na ci jikko yi nga xamne danay danay juddo ci xol moy li nga xamne moy mooy kañaan bokk na ci te luñu wax moy ngistal ngistal bokku na ci jikko yi nga xamne dana ci juddo yalla nang ci yalla musal ngistal moy lan ak lu mën doon su fekke man ngay defal sax diko wan bekkaay su boobaa yow ngistal lañ koy tuddee rawatina nga koy jëfal yàlla di jëfal yàlla di ko wan nit na maa ngi def nangam ko bokk na ci jikko yoo xam ne nit war na ko daw rawat na diggante nit ak nit looy defal nit na ko nëbb bu ko keneen xam xañ na bu bu ko xamee man na yàq sa jëf te loolu day yàq jëf alquran moo wax alladina yunfiquna ri ria annas gistal mu ne ñu seen jëf dafay mel ni ku ko jël teg ko ci benn xeer bu tax asmaan si taw yóbbu lépp lépp loo taw waxoon ci lu baax da koy ñàkk doo ci am benn fay su boobaa yomal xiyaam boo demee yàlla danaan ana ñu doon gistal dem leen ngeen ñu ngeen doon gistal man awma ci awma soxla awma soxla ci jëf jooju kon bokk na ci jikko yi nga xam ne dana juddoo ci xol mooy gistal yàlla nañ ci yàlla musal bokk na ci mooy yéem sa bopp nit yéem boppam lool yàlla nañ ci yàlla musal mooy yem sa bopp bokk na ci jikko yi nga xam ne mooy maama nangam may nangam may nangam benn xak xakim daf daa wax naan sitqul xabiix dafa am dëgg ju bon ñi la ñi lekk na ko lan mooy sitqul xabiix lan mooy dëgg ju bon mooy leen dëgg ju bon mooy sanaawu ala nafsi mooy ngay tagg sa bopp ñu ne ko nag lu tax wax loolu mu joxe exemple na su fekkee yow da toog nit ñëw di tagg boppam sa kanam doo ko ko wax de waaye sa xol bi mi ngi koy wax naan ko yow yaa soof yaa waane yow yaa gis sa bopp rek ñëw fi tagg sa bopp sa xol sa xolom koy wax comme ni nit di ñëwee di tagg boppam sa kanam nga di ko nga di ko naqarlu noonu ni nga nu nga koy naqarlee sa xol jàppal ne ëllëg boo taxawee di tagg sa bopp ci kanamu nit noonu la lay nit ñu jëppee kon loolu mooy tàgg sa bopp yàlla nañ ci yàlla musal bokk na ci timit mooy xool bëtu ngëneel mooy ru'yatul fadli mooy gis nit ne yaa gën mooy jàpp ne yaa nit loolu bokk na ci li nga xam ne day juddoo ci xol jikko la bi juddoo ci xol yàlla nañ ci yàlla musal jikko nag bu bu baaxee ci jullit ñëpp ci bokk jariñu ci bu yàppoo ñëpp ci bokk yàqu moo tax yonent yàlla muhammad alayhi wassalaam daanu wax ne jigéen nañ ci jihaad ju mag ñu ngi ñëw ci jihaadu jigéen ci jihaad ju ndaw ji ñu ngi ñëw ci jihaad ju mag ji mooy jihaadu bakkan kon nag bokk na ci li nga xam ne moom lañ mën a def ba jikko yooyu mën a dañ mooy tàggat jikko yi ci sellal te jikko yu te bokk na ci benn ci xol te xol dafa am ay soldaat yu koy liggéeyal mooy loxoom loxo nit bokk na ci lu ñuy liggéeyal xol bakkanam bokk na ci noppam bokk na ci ay tànkam bokk na ci ay bëtam bokk na ci bu ci nekk dafa am lu muy liggéey ci doomu aadama su fekkee làmmiñam lan lay liggéeyal xol benn mu defar ko benn mu yàqu naka la koy yàqee mooy di wax waa joo xam ne soit muy jëw nit muy jikko boo xam ne bokk na ci muubi xaat yi mag yi dañuy wax naan benn jëw mu ngi tolloog ji nit koo xam ne dafa njaalo juróom-ñaar fukki yoon kon jëw lu garaaw la nit ñaa ngi koy xeeb dal gis nit koo xam ne mi ngi ci leneen nga commencé di ko xeeb fekk li nga nekk moo gën a garaaw lu tax moo gën a garaaw mooy lii yàlla mënu la ko jéggal ki nga ko séq ak moo la ko mën a jéggal amma beneen bàkkaar yàlla yàlla la ko mën a jéggal te yàlla mooy rahmaani rahim mu yàlla mooy jéggalaakoon bi amma doomu aadama nag fi àgg fi yàlla àgg ci yërmande àggu fa kon nañu bàyyi xel ci yooyu li nga xam ne mooy jëw rawatina nag nga di ko def diggante jullit ak jullit yàlla ñu ci yàlla set jikko yooyu nit war na ko génne ci moom bokk na ci timit moom mooy ràmbaaj dox ci diggante nit ak nit bañ fenqalante dem ci baaba jaw na ko sal caab nee na nangam ak nangam ba nga ñëw ci mariama caab na ko kajate nee la nangam ak nangam su ko defee ba problème am ñu ñu commencé xeex ñoom ñaar loolu lañuy wax rambaaj yàlla nañ ci yàlla musal su ko defee bu ñu demee ci li nga xam ne mooy loxoom dana ko liggéeyal mooy di lor ay nit dóor nit bokk na ci yi nga xam ne bu ci nit saxee mën na dem ba yàq xolam te xol bu yàqoo nit dootul faale dara dootul faale lu baax dootul faale lu bon kooku lay alxuraan kalla barrana ala qulubihim ma si yaksibuun ñii kat seen xol yàqu na ngir lan jëf ji bon ji nga xam ne saxoon nañ di ko def moo dem ba yàq seen xol xamatuñ lu baax xamatuñ lu bon mooy mooy waral nit tiib nit tër rendi ko du du du du ko yëg ñi nga xam ne ay terroriste lañ li waral tey nit di sol ay bomb dugg ci ay cérémonie wala bu dugg ci ay marché wala bu dugg ci ay juma di taal boppam parce que yàq nañ xol bi nit nag bu yàqee sa xol lépp lu ñu def loolu nga def ko lépp lu ñu def loolu nga def ko kon nañ fexe ba sàmm xol bi ak lépp loo xam ne mu koy liggéeyal. ba xol bi du yàqu rek nañ ko nañ ci góorgóorlu ah, bokk na ci ba tey mooy ay noppam na fexe bu mu ci déglu li nga xam ne mooy ràmbaaj bu mu ci déglu ay ay jëw bu mu ci déglu loo xam lu dëgg làmmiñ bi na fexe buy wax na wax dëgg parce que ñàkk wax dëgg mooy bunt boo xam ne nit bu ko ubbee rek ubbi na buntu bu ubbi buntu ak caay benn waaye dafa ñëw ci yent muhammad na ko man de bëgg naa dugg ci l'islam waaye dafa am jikko yoo xam dafa nekk ci man mënuma ko bàyyi mu ne ko ban ak bala mu ne ko mooy naan sàngara topp jigéen ñi ak li nga xam ne mooy wax lu du dëgg te yooyu yëpp mënuma ko bàyyi naka laay def te bëgg naa dugg ci lislaam mu ne ko léegi may naa la nga bàyyi benn jikko ci jikko yooyu nga dugg ci lislaam mu ne ko balla mu ne ko bàyyi bàyyil wax lu du dëgg mu ne ko waa baax na waa ji daal di tuub dugg ci lislaam ba mu tuggee dugg ci lislaam nu mu def ba mu demee di war a naan sàngara mu xalaat ne kat lislaam ku fi naan sàngara dañ lay caw téeméeri yar te su ma naanee sàngara su ma demee ci moom su ma laajee ndax naan nga sàngara mën a déedéet kon su boobaa pacte bi ñu si ñëwoon maa ngi moom teppi naa ko wax naa lu dëgg mu daal di bàyyi sàngara si xëy dem bëgg a jot ak jigéen joo xam ne du soxnaam xalaat ne kat moom wax na ne bàyyi na fen te waxtu wu du sëy jigéen joo xam ne du soxnaam dem ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi mu laaj ko na ko mbaa jotoo jigéen ju nekk ak sa soxna su boobaa su ko waxee déedéet su boobaa teppi na waxam su ko waxee waaw ñu coow ko téeméer yar mu daldi bàyyi ba mu demee na ko dëgg-dëgg yaay docteur yi docteur yi benn jikko nga ma tere ay moom mboolem jikko yëpp parce que nit surtout maanaam jamono ji ci wàllu whatsapp wàllu da ngay ool nit mu ne la maa ngi fi fekk yow jugiwu sax fa mu nekkoon maa ngi lay xaal ci grand place bi ngeen ko non waaw maa ngi ñëw accident fekk génn goo sax sa kër kon bokk na ci jikko yu gën a suufe mooy wax lu du dëgg te loolu war nañ di ci yar ndaw mi su fekkee nit da ngay yar sa doom ci jikko yu mel noonu waaye nag lii waral tey nit di dem bay wax loo xam ne du dëgg mooy tiit da koy waral nit boo yar sa doom bu ko yar ci violence yar ko ci naxante jegeel ko sa bopp waaye boo ko yaree ci di ko xupp di ko tiital mooy tax ëllëg bu defee njombe sax du ñemee wax su fekkee danga jël sa portable bi teg ko ci néeg mu xale bi jël ko toj bu ñëwee nga laaj kan moo toj toj toj kan moo toj portable bi su fekkee da nga ko yar ci dëgg danaan maa ko toj papa tey moo su boba dom ji war nga ko fo nga dom ji ëllëg ci njub rek lay nekk ku yàlla ñu yalla dimbalé dafa ñu njub bokku na ci timit kon nak léegi nak nu ñuy def nak la def ba tàggat cër yooyu nga xam ne jëf-jëf yi pour yaq xol moy bu ci nekk moy su fekke lamiñ ne fexé di tuddu yalla di déglu lu bax di jang alcorane fekke sey beut xoolal jëm ci li nga xam ne mooy borom xam-xam xoolal jëm ci li nga xam ne mooy kaaba gi wala xoolal jëm ci ñaari jur bu yooyu bokk na ci tàggat nit ki ba xolom mën a baax nit ki nag xolom su baaxee du ko jëriñ moom donc waaye dana jëriñ société ba mu nekk jëriñ ñépp kon moo tax moom lay tëjee li boroom woykat bi wax mi Ahmed Sawqi innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humo zahabat axlaaquhum zahabu nee nañ xam ne nation bi yépp jikko yi ñoo leen fi bàyyi su jikko yi baaxee lépp baax bu yàqu lépp yàqu kon na yàlla yàlla baaxal suñu jikko yàlla nañu yàlla dimbale yàlla nañu yàlla jubal yàlla nañu yàlla teg ci siraatal mustaqima ndaw yàlla yàlla dimbale leen jàppale leen yàlla yàlla sàmm suñu Sénégal gii ci jikko yi nga xam ne ñoo ko mën a téye ñoo ko mën a yor yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu